dafay mel ni ku ma am ndey ak ku ma amul ndey parce que bu fekkee tey jii da nga nekk meeru dëkk jàpp naa ni képp ku yeewoo si askan bi yow war nga ko mën a taxawu war nga ko mën a jàppale war nga ko mën a aar war nga ko war a mën a yiir parce que loolu sa compétence la mais tey jii soo ñëwee fii si Ndar Fall nga gis wax dëgg yàlla population bi sinistre mbënd mi yàq seen kër yi daara yi tey jii ndongo yi jàngatunu en tant que autorité en tant que maire tegoo fi si tànk loolu damay jàpp ni tey ji par exemple loolu askan wi war na si bàyyi xel xam ni maire bi wax dëgg yàlla dafa mel ni dafay am ñu muy favoriser am ñu muy bàyyi. en tout cas ñun suñ programme par rapport ak DG Serigne Diop je sais très bien que bu ko askan wi wóoloo jox ko dëkk bi yaakaar naa ne problème yu bëri yi nga xam ne dafay am nest dina deñ parce que boo xoolee mbënd mi lu ko gën a yokk mooy par exemple Euh, si kii yi nga xam ne de canaux yi si canal yi nga xam ne gas nañ ko nest pas am na au niveau n'est-ce pas de la commune de Diourbel amul cure amul curage te ñëpp xam nañ ne salté da si nekk ñëpp xam ne n'est-ce pas lu bëree bëri da nekk si canal yi kon bu nawet jub jub see da nga ko war a dindi mais canal yi moo yokku mbënd mi loolu tamit également da nga koy wér maire bi. parce que moom moo war a n'est-ce pas jël en charge la population jël en charge seen sécurité n'est-ce pas ba nga xam ne inondation bi tey jii ni mu demee nii tey ji bu yokkoo rek mën na wax tey jii par exemple c'est grâce à la commune de Diourbel. bu doon tànn tey jii leadership au niveau n'est-ce pas de la région de Diourbel dama jàpp ni Saïd Diop la lu tax mooy que ni maanaam euh, leader yu bëri nga xam ne leen bi ñu ngi fi tey n'est-ce pas euh, politique moo tax ñu def li ñuy def. mais Seydou Diop n'est-ce pas dafa social bien avant nest pas muy dugg ci politique te politique ki koy def mooy que nii ki nga xam ni peut-être euh, am na maanaam autonomie par exemple financière parce que bari na politiciens yu bari yi nga xam leen bii fii si Diourbel tey jii buñ tekki woon seen doomu tànk si wàll politique yaakaar naa ni tey jii liñ doon def lépp duñ ko man kon dafay baax ñu am dëkk bi ka nga xam ne leen bii. au moins du soxlaal tey jii dëkk bi dara mais dafay apporter li mu am n'est-ce pas dëkk bi en terme n'est-ce pas d'expérience d'expertise n'est-ce pas en terme également de relation n'est-ce pas te yaakaar naa ni loolu lépp tey jii le DG Saer Diop mate na ko.